Lac Rose ñoom ñaar Fils de Balla jokkaas na génnaat ñi ne nañ bu dee ci xeex Lac Rose moo avantage bu dee ci bëre Fils de Balla avantage waaye ci xam dara Fils de Balla jël na ko Lac Rose jël ko Lac Rose door ko mu génnaat ay bi la combat ñoom ñaar Fils de ñoom ñaar Fils de ñoom ñaar Lac Rose ay xeex Balla Lac Rose oh Fils dugal bopp bi lu mu bëgg Fils de Balla bi lu mu ñaar xeex nañ daw jàppante ñoom ñaar Fils de jël na ko jëm ko songale waaye Lac Rose dafa ràcc. ràcc dëxin moom la Lac Rose def Fils de Balla jàpp na ko ba mu baax mu zongale ko Lac Rose ko poids bi Fils de Balla ak Lac Rose mbokk yi fii ci wax naa leen ko waykat yi rek ñooy way dëggkat yi di dëgg waxkat yi di wax reporter yi ndeysaan ñu ngi noonu ñoom ñaar kii Balla Gaye numéro 2 ko indi. kii Gris Bordeaux moo ko indi ñoom ñaar ndeysaan Fils ak Balla Lac Rose mbokk yi ñu ngi noonu ñu ngi ciy bëggee mbokk amee doro ñuy seetaan Lac Rose te ñu doon ko arbitre àtte na ay ku ne la maa xam ne ko bàyyil bu dimanche dëmb fii la Ibo Afia heure bii la dëpp Baba Jaxal dëmb ci heure bii tey ci heure bii Fils ak Balla Lac ñaar ñoo fi jàkkaarloo mbokki amee doon yëpp a ngi suivre di seetaan ñaari xale yu ndeysaan ñi nee nañ l'expérience face à la jeunesse la waaye man dama bañ mag ak amu fi noonu ñoom ñaar mbaa dóor mu daanu du am mbaa dóor mu daanu du am Lac Rose Fils de Balla mbaa dóor mu daanu du am laa ilaaha illallaah oh quel combat quel combat quel combat Lac Rose Fils de Balla ñoom ñaar xeex nañ xeex bu neex waay Lac Rose Fils de Balla ñoom ñaar xeex nañ xeex bu waay. Lac Rose Fils de Balla ñoom ñaar ndeysaan oh. ñoom ñaar xeex nañ juwaloo xeex bu neex waay weccoo nañ kuy saf sap ñoom ñaar Lac Rose mi bëgg na combat bi waaye Fils de Balla bëgg na combat bi Lac Rose loolu mu def mooy lan si gi taxaw jonn oh ay Lac daa fonk bis bi waaye Fils de Balla nee na ko du ma may dara Lac Rose Fils de Balla ñoom ñaar xeex nañ xeex bu metti ku nekk encaissé na sa coup morom muy Lac Rose muy Fils de Balla waaye lamb kenn mënu ko utiliser tant que jeexul ñoom ñaar ñu ngi ci bi Lac ak Fils Balla mbokk yi ñoom ñaar ñu ngi noonu. bi ci arène nationale wax naa leen ko fi mujj koyoon si booy la bëreel ñëpp ne Lac Rose mu dem defaru ji ñëwaat fi sa bala bu fi mujj moom it góor a ko arbitre attel na leen a ah, Lac Rose mi ngi yëkkati public bi waaye Lac Rose bul topp public bi bul topp public bi bëree ak li nga war a bëree ndax xale bi ngay bëreel ndaanaan la buy Fils de Balla ñoom ñaar Lac Rose Fils de Balla lamb ji mën naa jeexee ci xeex de ndax lii ma gis nii oh ñaari loxo yi benn oyofu ci Lac Rose door na Fils de Balla ba mu wëndeelu Fils de Balla door Lac Rose ba mu wëndeelu ñaar ñi noonu. oh wax naa leen ko de xale ak amul de ku liggéey rek yaay wane preuve fi sa liggéey na waaye Lac tamit liggéey na ndaysaan ñoom ñaar ñu ngi noonu Lac Rose fi sa na fi ci Arène Nationale bëri lu toll ak juróomi minute ñoom ñaar. Lac Rose ak Fils de Balla daw na jàppante Lac Rose gis dina ko day xeex ak day xeex ak moom Fils de Balla ak ñaari xale yee ngi wuure waay man na bëgg làmb ju neex ab Diop joxal Njaay Touba ak Ndakaaru gi di dal ñaar Fils de Balla ak Lac ñaar ci biir géew bi ndeysaan Sabala ak Lac Rose tey lamb ji neex na gars yi nañ lamb gis nañ Boy Niang surtout Cheikh Yérim Ndoumane gi wala Fodé Koné Mbaye ndeysaan ñëw na ci lamb ji nii la la yow oh si Sabala daa bëgg a songale Lac Rose waaye Lac Rose daa bañ ndeysaan Balla Gaye numéro 2 ñëw na ci lamb ji Gris Bordeaux na ci lamb ji waaye wax naa leen ko bisu tuut borom lay tollool kan moo tëgg ñu ne Kandji borom ETDR Kandji l'homme social kii jàppale ñëpp di jàppale waaxlu lamb tey moo woote presse bi yëpp dugg nañ ndaysaan di def seen liggéey loolu am na solo ci làmb ndax ñuy dund làmbu tey boo ñëwee mercredi ñoom nga fi fekk kon yàlla na bu làmb ji toll nii amee ñi yaatal leen ñu ñëw ci làmb ji ndaysaan mu ngi noonu stade bi ñëpp a ngi ne tekk di déglu ñaari mbëri waaw waaw arbitre woowaat na leen ñoom ñaar nee na ñëw leen ndaysaan ñoom ñaar Lac Rose Fils de Balla Lac Rose Fils de Balla ñoom ñaar oh yaa ngay wàcc téere yaa bu ci wadd sëriñ ba am lay ndax làmb fii mu toll oh sëriñ si amatuñ ci yoon liggéey rek mooy gañe ku liggéey rek mooy gañe fii làmb ji toll liggéey rek moo fi génne nit ñaan lu woon sa ñaan fi toll moo fi des waaw fi toll nii liggéey rek a ku liggéey yaay fayeeku c'est le travail qui paye qui n'a pas travail qui n'a pas paye waaw waaw oh. dañuy dem deuxième làmb ji fi mu toll nii ñoom ñaar nañ lu tolloo waaye Lac Rose tamit ñam na li Fils sa Balla di saf moo tax fu ci nekkee ngi taxaw di déglu sa morom Lac Rose sa Balla ñoom ñaar Lac Rose jokkaas na Fils sa Balla def benn pas recul ñaar ñu ngi noonu oh làmb ji doy na waar Fils sa Balla Lac Rose at bi attere na dix minutes yi mën na dix ni yi mën na dix minutes yi mën na lu xew. dix minutes noonu ñoom ñaar arbitre bi sifflé waan na ñoom ñaar ku ci nekk suul nga say tànk taxaw tànk yi jegante na trop bi paddo am na fi yoon lu ne na fi yoon Sabala ak Lac Rose Sabala ñaar fi Sabala daa bëgg a jàpp Lac Rose waaye Lac xeex bi bëgg saa yu duggee da koy génn ak ay bricil ñaar fi Sabala mi ngi koy imposé dama lay jàpp par force waaye est-ce que dina ko ko may fi Sabala ak Lac ñaar ñu ngi ci waaw waaw Lac Rose Fils de Balla da koo bëgg a manœuvrer na mu defoon góor a soog loolu la ko bëgg def jàpp ko dugal bopp bi daw manœuvrer ko loolu la bëgg mais est-ce que Lac Rose dina may loolu songale na ko mu bañ waaw waaw waay waay waay waay waay waay Fils de la waay ak Lac Rose waay ñu ngi bëre waay lu neex ñoom ñaar Fils de Balla jàpp na ko manœuvrer ko Lac Rose bañ mu songale ko Lac Rose bañ Lac waay ndaysaan ñoom ñaar ku liggéey nga Lac liggéey na Fils sa Balla liggéey na Fils de Balla ak Lac ñoom ñaar ndaysaan waykat yi rek ngay dégg fi mu toll nii ak waxkat yi ñi yor di wax ñi yor micro di way gëwëli di tëgg dañuy machine yi ah mais loolu moo fi des parce que duñ leen loo ñoom ñaar ñu leen bëreloo ñoom ñaar Sa Balla ak Lac Rose Sa Balla ak Lac Rose ñaari quatre avertissement yu njëkk yi dafa gaaw dafa gaaw loolu la gars yi wax ndeysaan arbitre woo na leen une minute moo leen dese de une minute moo leen dese une minute jeex na cinq jeex na jeex na Sa Balla ak Lac Rose machine la ah match nul disqualifié disqualifié la ah ah ah mais non gars yi xaaruñu woon lii ci ci ci combat bi